acca salaamaaleykum gars ñu ngi leen jox yéen ñëpp ku nekk seen wàcc waay ñoo ñu ngi waat ak yéen fi nga xamante ne moo di géej waay comme ni ñu ko defee woon Dalifort ngir waxtaanee li nga xam ne moo di leçon de vie comme ni ma la ko waxoon leçon de vie koy jëlee tey si li nga xamante moo di cœur brisé tey si cœur brisé la ñuy waxtaanee entre Massamba ak ramatulaay est-ce que jigéen war na dem bay charmer góor mu dem ba koy tëddee te loolu moo nekk suñu thème bi moom lañ nar a waxtaanee moo tax tey ñu ñëw fi nga xamante ni moo di géej waay damay bàyyi sama invité yi ñu nuyoo ku nekk présenté wu soxna si nuyu naa la. fay naa la. tur la. Mame Marie. Mame Marie yaa ngi seetaan Cœur Brisé. maa ngi seetaan bu baax. yow ban heure nga koy seetaan. man damay télécharger guddi gi rek su ma tëddee daal di koy seetaan. par wifi wala par connexion. par par wifi. par wifi si nuyu naa la. maa ngi lay fay. tur bi nan la. Kumba. Kumba. yaa ngi si jàmm baax. maa jàng wala élève nga wala lan nga. <laughs> élève. frère nuy naa way may lay fay frère. yaa ci si sante ba. sant bu baax bi nan la. Ahmed Sek. amé da sétan seetaan kër bi de. waaw ma ngi koy sétan nak lu bari. kër bi de. non Seck sama darmaan yi may programme suma ma programme dañuy faral nan ma nan gaaw bala kër bi lay jeex mané len légui kon nan talé arrêté programme bi rek da waaw ma ngi koy ñam ni rek lu bari nak nuy ma lay fay. yaa si jàmm ba. ngi si Jamba nan la. Mariam Diallo. Mariam yaa ngi sétan kër bi Mm, maa ngi koy seetaan bu baax. noo koy seetaanee. maa ngi koy seetaan ak acte boo xam ne dina ma neex ak boo xam ne tamit du ma neex. lan moo dugal si Cœur Brisé. Cœur Brisé li mu ci dugal bari na benn mooy fidélité ak fidèle. Mm-hmm. gis ngeen gars yi comme ni mu leen ko waxee woon tey ñu ngi fii Géejawaay ah lu ñu waxtaanee rek mooy Massamba ak ramatulaay waa frère est-ce que jigéen dina charmer góor ba mu dem mu koy tëddee quoi. bari na fi. mais est-ce que loolu est-ce que loolu rôle góor la. non loolu moom du rôle góol moom. mais ça dépend nag affaire yi ñaar la am na yoo xam ni ku góor ki day daw ba sonn mais ku jigéen ki tamit liñ naan jigéen daal du rëbb muy sooy dëgg la jigéen lu mu bëgg suba ba ngoon daa fekk da koo neexul mais su ko neexee far fos bu ko yóotoo da koy am mais nag ku góor ki tamit yàlla def na benn affaire moom mooy xaw moytu daw yu bari barki Serigne Bamba loolu daal doy mais mais est-ce que tey c'est normal yow tey jigéen tey dem bëggoo ko nga dem mu lay charmer nga dem ba koy tëddee est-ce que loolu c'est normal looy wax ci loolu. ah c'est parce que dafa am dafa dund lu metti ci jigéen ndax jabaram daf ko koo def. moo tax jabaram jabaram lu ko trompé trompé waru ko kii. mais mu jàpp ne ne ci ñoom la ko waroon a mun a fayoo. Hmm. moo tax loolu nga ah. di nga charmer góor. non. Ah? non xalaatuma ko mais ko bëgg mais. Massamba moom bëgg ko moom faj mer moo taxoon mu dugg ci. mais est-ce que tey nit boo ko bëggee da nga ko war a charmer tey ba dem lu may wax ci loolu ah euh, lu français naan chacun a son a ses raisons rek du dëgg parce que moom xëy na xelam moo ko tolloon foofu rek. xelam xelam comme genre ban côté. parce que moom pour moom euh, benn côté bi Massamba bëgg na ko genre looloo tax mu charmer ko ñu def piscine nu guddi nu comme nu ko xale yi faral di waxee rek comprendre nga voilà mais ak nu mënti demee rek ñoom ñaar ñëpp man duma ne Ramatulaay la du ma ne kee la parce que Ramatulaay dafa bëgg kee dafa dund déception comprendre nga te ku nekk aussi mënul toog euh, ne da ngay kuul Masamba da doon xool fu mu fajee mer Ramatulaay du ko bëggoon looloo tax mu def nii mu def. mais xawma sa copain xawma sa jëkkër di nga ko charmer té ba nga dem té mu lay def loolu est-ce que loolu c'est normal. ah di nga charmer goor yo man pourquoi faire mais di nga dem ci ben jamono nak nañu xënte deug té dé temps bi da tollu foofu na di nga ben dem ba ben jamono tamit hmm yow kon ni ma déggé rek yow da ngay charmer góor ah, ah charme gu ma nekk mais dimi jamono. yo yo lo ci non man ku ma dang maa bett kii nu ma ko gisee muy waxee nii. kii day charmer góor mais gis-gisam la wax de. mais kii day charmer góor. non mais. <laughs> non non kumba kii daf ma bett daf maa bett parce que du jigéen ñëpp nga war a charmer am na ñoo xam ne dalay jaral nga jaay ci sa bakkan mais tey ji am koo xam ne jaral la nga teg sa bakkan dem ci biir mu tromper la loolu tamit c'est pas facile te c'est pas honorable tamit nga di ko dund. neexut ci xol genre su ma demee bay topp jigéen di ko tayal sama bopp damay am fu may fu fu suur fu may teg sama loxo. topp jigéen wala booy topp góor. bu may topp góor day am fu si foo xam ne dama fay teg sama loxo ndax tey dañoo toll foo xam ne tey jii góor dina lu utiliser ba pare ne la takkoo sa sër tamit loolu ci la. taxal góor bu la utiliser ba pare ne la sa sër kon si yow la. kon kon kon ci ñun la kon ci ñun la moo tax loolu dañ koo war di daw parce que daw baraw ci ngóore la bokk ndax ñun jigéen dee kan dañuy bëgg mais dañuy dugal suñu bopp. ndax lu ñu xas ba bëgg rek jeex na tant que amuñu ko liñ naan dañuy rëbb ba sonn mais du ñu sooy mais man ci ñuy sooy sax laay bokk du ma ne góor du sooy mais man ci ñuy sooy laa bokk ndax damaa xam sama bopp. nga wax si ñuy sooy nga <laughs> parce que damaa xam sama bopp xam fi may teg sama tànk aussi bëgg naa tamit bëggante naa mais du du tax man tamit ma jël sama bopp di ko wasaare. ki nga bëgg noonu est-ce kii nga ko est-ce que da nga ko charmer wala charmer woo. non au début je l'ai fait. <laughs> Eh, wax ji mi ngi mais tey tey loolu la ñu wax de tax lan moo tax ngeen di góor ñi en fait. booy la moo ñu ñuy charmer quoi lan lan lan. non c'est que nag ma ma moment bu ñuy toll ñun quoi ñoom ñuy teg bët. waaw mais góor loo ko teg bët teg bët mais jarul charmer en fait tey mi ngi nii Ramatoulaye charmer na Massamba mu dem ba mu ko tëddee tamit tey kii bu charmer woon kooku kooku tëddee ko tamit kila kii laa faute. loolu li ko ci indi ci lu ëpp mooy ñoom xale yu jigéen ñi balaa ñoo gën a mën a nekk ak yow nga nekk ak keneen. non attends rek non taxawal lu leer laa lay wax xale jigéen yi balaa ñëw comme tey exemple Ahmed Seck di génn kii ñoom dinañ def le tout pour mën a jot Ahmed Seck pour moo kii mën a rayante léegi moom bu nekk man ak nu mu mënta deme rek nu ma lu ma ñëwee nu ne dama ciy fekk si. kon xam nga ne jigéen waru charmer góor. si mais jigéen dafa war a seer. ñëpp naa ko ne yi loo seer seer yow waroo man ne ku ma charme duma la tëddee nag xaw ma keneen mm. waaw c'est ça xam nga lii yow du keneen mais man jàpp naa ne ne loolu waru war a mun a nekk ndax boo xalaatee ne diw def na ma lu ma metti war naa ko war a mun a faj ci keneen du noonu mais gis nga Ramatulaay tas na amoon na jëkkër depuis diir boobu toog na téye boppam xale la ba tey mais gis nga après bëgg na ko jàpp na ne bu ko joxee boppam Massamba def koy. bëgg mais nit nit waroo ko bëgg di ko jox sa bopp en fait. xam naa xelam tamit moom it foofu la tool yow yow Massamba Massamba Massamba Massamba benn jour la gis euh, kii nii. non Ramatoulaye benn jour la gis Massamba. ci bureau bi ci bureau bi. jox ko numéro téléphone am. ma ma Samba moo ko Ramatoulaye moo ko imposé boppam en fait. du ci ma Samba man soo comme ci man li ma gis du ci ma Samba parce que non même pas attends parce que ma Samba moom moo ngi ci bureau am moo fëgg moo dugg. après li mu fa gis ba tourné mu génn te commencé di topp Massamba yaa quelque chose nañ xool. waaw mais taxawal mais mais mais mais mais mais non mais jigéen jigéen man fi ma waxee mooy. jigéen warul charmer góor ba mu dem mi koy tëgg ba mu dem ba di ko tëddee. waaw moom la bu loolu du mais loolu du yoon quoi. bu jamono ji moo toll foofu instant yi si billaay yaa ne nañ waxtaan wax dëgg ci la tamit de loolu lañ fi wax waaw noonu la parce que Masamba tamit nee nga noo ragalu ma nee nga Masamba euh, kee moo ko charmé comprendre mais charme wu ko xam naa nu mu ñëwee xeetu parfum yooyu noonu yooyu mën naa rey jigéen. yow ñaata yow ñaata yow charme sa copain ah non ay charme yooyu yëpp ay détails la yii nii non loolu détail la rek. baal ba non baal ba ma charme la nag ah baal ba ma charme la yooyu yëpp ay détails la yooyu noonu. <laughs> ma charme man maa ngi nii man damaa ñaaw man nee man nee nañu may charme mais dañuy waxtaan quoi mais est-ce que tey jigéen war na charme góor tey est-ce que loolu est-ce que loolu tey c'est normal en fait. Ah, Masamba Eh, ba ko Ramatulaay charmé comprendre nga Ramatulaay forcé wu ko boppam dëgg la wala dëgg ah ah forcé wu ma samba bu nekkoon góoru principe da ba mu ñëwee ba wad ba waddal sarbet moom waroon na koo mën a for. <laughs> saa yoo xam nga xam ma. jigéen ma non taxawal non taxawal loolu d'accord ma non d'accord ma sax xam nga d'accord ma ne kan mooy delloo la le plan jaaxal noo taxawal wuy ma wuy ma man man ma eh, eh, attends non loolu dëgg la mais xam nga lan mooy problème bi comme tey ma jox la exemple man man man mii su ma ñëwoon sa kër tey seet la nga nopp ma ñuy génn ma doxan la tey suba nga ma seet si ma ma ñëw seet si la su ma ñëwee sa kër ak nu mu mënta mënta demee maa ngi koy doog a dugg maa ngi doog a ci kër gi mais loo ma mayul du ma ci yegg si loo ma mayul du ma ci yegg si mais li ci ëpp yéen ñu koy may moo tax dañ ci yegg si tamit mais tamit ñun tamit il faut waaw ñu xaw a tourner tuuti parce que ñoom tamit lu ci bari seen xel yi matul parce que ñoom toujours rek téléphone bu seer xaw na leen a nax ñoom toujours dàll bu seer xaw na leen a nax nit du sa morom am rek da nga ko war a am yàllaay maye da nga koy xool ba su ñun artistes yi noonu la demee ñun dañuy xool da ngay gis jamono ji diw xew na jamono ji diw xew na jamono ji kii wàcc na jamono ji kii yéeg na juri nak non lay doxé jamono ju non lay doxé motax ñom xalé jigen il faut ñu wañi sen tank tuuti parce que lu ci ëpp ci ñom la boo xol góor ñi ñu dara parce que góor tamit góor la boko sété ci négam amna wan tamit à tout moment ah damay sék ci laay la wax si lolé non man nanguma lolou tax nanguma c'est parce que gis nga ji góor bo jigen bu ñëwé jox la bo bëggul bëggoo mais boko jappé ni comme sa yaay wala nga jappé comme sa rak non non bul duggu fofu bul duggu fofu amna amna pourquoi pas amul. artistes yi. artistes yi dañuy reer. bul bul toox ma dél ma bul <laughs> bul tooñ artiste. bul tooñ artiste bul tooñ artiste dañ fee wax ba dugal fi waxu du dëgg artiste day reer di doxaan. artiste day nelaw di doxaan. artiste boo nappit suur naa xam ko ci jigéen. eh say boole fukki gel ak juróom benn. nga jàpp ko de mu ne du moom artistes yi ndaanaan lañ du professionnel man ma xam ay artistes. ku ma xam nga la moo tax ma ne la foofu dama la ciy jàppale parce que tant que demuñu programme tant que demuñu programme am succès bu baax tëgg nañ gis nañ ku mel ni Ndeye Marème ku mel ni Ameth Seck jógee fële ñëw si. mais mais mais attends mais yéen mais yéen taxal mais mais. dañuy charmer ñun ñu ngi naan dañuy charmer. ñun ñu ngi naan dañuy charmer mais de retour ñoom tamit dañuy charmer waate. mais non mais góor moom man man man noo wu ma. non man musuma gis non góor lu muy jaay boppam. na góor dafay jaay boppam. góor mais góor mais attends mais attends mais góor góor dafa war a sañse bëgg boppam. comprendre nga mais yéen tey góor day sañse bëgg boppam nga naan kii jaay taar bu tilimee bu tilimee nga naan xool kii num num. c'est parce que moo lay romb wàccee tubayam ba mu rocci tuñam ba mu xonk cuur jël kanamam diw ko ba mu ba mu jigéen ñee waroon na diw mais léegi góor ñee diw. man ma ko xam nga d' ma loolu d' accord ma góor ñi am na ñuy diw mais ñi ci diw da nga leen di compter Ah, degam det parce que ñun tamit wax deug fa yalla yu ci bari da ngay gis goor yaakar day diw diwul dafa am ño xam dañu bëgg seen bop naturel dem nañ ba sabbi jigen di sango sax dañ koy sango pour sen teint meuna civilisé parce que nit tamit boy dem ci ay nit ak no meuna mel même bo do sango sax yow war nga meuna am image pour boo yegsee ñu meun la bolé si nit ñi lolu kassa la mais du len mais wute nañ comme genre comme genre li dama tullaay mun du man li man du ndey mareem Ndeye Marème mun na charmer mais man mun na baña a charmer. ku fi charmer moom moom. dëgg la loolu am na yóbbu te nit charmer na góor te joxu ko boppam. mais mais mais tey du yoon tey jigéen di charmer góor du yoon man moom nanguwuma ko. mais kii bëgg rek nga wax ma lu tax du yoon. waaw mais góor jigéen waru charmer góor. c'est parce jigéen dafa war a seer. kii moom kii day sarme waate kii waaw kon lu tax ngeen góor tey jigéen du du sarme góor mais yéen ni ngeen bëgg jël yéen toor bi yëpp jigéen bon na parce que jigéen non jigéen jigéen mooy yaay jigéen mooy dooni yaay ëllëg eh, tey tey tey mun nga non eh, góor forcé na boppam jigéen jël ko def ko lu ñaaw dëgg la wala dëgg jigéen bu ñu waxee ñu ne iPhone nay mbaraan ma maa ngi ni Samsung laa yor te fii yer naa ci bu ma ci sinabee ba bàyyi nga ni déet lu dëgg dañ waxante dëgg te dee góor force na jigéen boppam jigéen force na góor boppam nañu dimbali fii àdduna la xam ah, ne non non non dama laaj kon yow kon yow kon yow tey kon yow tey dàq nga tey si lu ramat laay def nii ah d'accord naa ci bëgg-bëggam la rek. boo taxee tëddee nañ ko. waaw mais garaawul. moo tax ma man foofu d'accordu ma ci. man foofu ci benn côté. mais foo déglu ma man foofu ci benn côté d'accordu ma fi na xamul ta d'accordu ma fi charmé na ko jox na ko boppam tëddee na ko de un na woo ko faalewu ko taseeg moom nuyuwu ko. ndax lan moko ci dugalon amour te amour bi mi sentu koku de retour nekul ci mom kee copain waxtaan naa ak moom génn na dem am lu mu jënd fleur ñeu accompagner ko nuyu ko te lolu c'est forcé ne ku jigéen ki dafa bëgg mais pourquoi pas yow nga charmer ku gor charmer ko top ko mu dès que la première fois lan la parfum jantal watu la wala dégradé la wala dal wala semige gor ñepp koy solo ah, képp ku fier rek di nga gis sa boss képp ku fier di nga gis sa boss mais mais l'essentiel que mooy non non non non non non kii charmé wul kii charmé wul dafa wax ak i jigéenam dafa wax ak i jigéenam li man <laughs> ma neex neexul keneen dañu waxante dëgg waaw oh, <laughs> déedéet déedéet may man li ma saf saful keneen de nañ ko waxtaanee te déedéet baax na mais yow da ngay charmer góor man dama bëgg a xam da ngay charmer góor non non non da ngay yow da ngay charmer góor waaw wala góor waaw maa ngi leen di wax léegi léegi benn affaire xam nga dëgg la mbëggeel du tàggoo buy dugg ci xol di toog loolu dëgg la fi mais tamit dinaa la benn affaire góor bu la bëggul nga koy forcer sa bopp di ko forcer sa bopp bu yàggee tamit yaa dalay lay jéem a am ci yum la dugal pour mën a daw roccee ko suba boo ñëwee bëggaat doo ko fekk mais ñun tamit benn instant ñoo ngi daw ba dee mais lépp ci yéen la gisoo léegi-léegi ni mu waxee boo xoolee xam ni xale yi jigéeni ñi jamono ji ñu boo bëggee dégg-dégg dina dinaa la benn dinaa wax benn dinaa la dinaa la wax non déglu ma rek dinaa la wax ñun xale yu góor yi bu ñu kenn waxati lenn xam nga bu ñu kenn waxati lenn jamono ji jigéen ñi surtout ak jànk ju ndaw ji doog a juddu ji doog a màgg ngi dëbb dëkk bi ba mu mel ni soleil ñoo ngi dëbb dëkk bi ba mu mel ni sonkurong ba ca bànjul xale yooyu non waxuñu artiste ñun entre ñun xam nga lan lañ fi waxtaanee la moo tax jigéen tey di sarme góor ñun loolu lañ waxtaanee xam nga la ma bëgg mu bàyyi artiste yow yow kii ñàkkul ne def yow xanaa da nga am faru artiste am naa dalaa kon waaw dalaa kon waaw waaw waaw yow kay loo moo tax gisoo affaire yi nii la yow loo moo tax yow yow tey li ma métti yëpp war naa koo mën artiste yi rek yow da ngay yor gel bu réglé dëgg la wala dañ ko koŋ artiste da ko koŋ nañu xante dëgg nga dugg ci moom ñu fi nekkoon. yow nag lu tax ñu naan kër brisé dëgg yow lañ def. cœur maa raw ñëpp maa ñëpp maa ñëpp mais mais garaawul mais tey jii man bu ñu brisé tamit sama cœur du ma dem eh, bàyyi ma yow ak doon yàlla tere du ma dem ci keneen naan damay brisé cœuram loolu du yëfu góor mais tamit góor ñi dañu waxante dëgg ndax saa leen seen xel. man góor ñi jigéen léegi ma léegi ma léegi ma comme tey kon ram kon tey Massamba li mu fekk li mu fekk jabaram si biir néegam ak góor. kon yow tey sa copain noonu la def ba tax na yow doo mun a feeku si keneen. ay bu ma ko fekkoon ci kaw la rek jigéen. eh boobaa nag. dañoo briser sa kër te yow ngi ne doo briser këru jàmbur ah. ndax ma koy def duma ko def boobu moom duma ko def du ma briser kër jàmbur baal waxu charme. lépp naturel rek. maa ngi dégg man foogoon naa ne Dalifort moo daax mais géej waay fii moo daax. barke benn affaire kii li muy def kii nii xaw ma xamatuma ñaar ñii de. Ah. mais kii li muy def sarmi góor a ci gën a yomb tuuti. kii moom ko doy waar la boo xoolee rek xam moom laa la xam ma wax benn affaire. Uh-huh. tey man Ahmed Seck artiste la maa ngi sama programme di zee teg naa samay pièces maa ngi zee tey jii ñoom. ñoo ngi ci ginnaaw programme te àdduna du neex bañ toog ci siège duñ toog ñoo ga ci ginnaaw du xaar Ahmed Seck pare ñu ne ko jox ma sa numéro. jëlal noonu la. loolu moom suñu habitude la bari na. bari na eh, mais non ndax da ngay gis jigéen da ngay gis jigéen mu ne la rek mu ne la gis naa ne kii ni dafa war a naam a am koro programme. nee na déglu nee na artiste bu. waaw mais tax nag bu ngeen leen jooyee nag ñu tëddee leen mu jeex benn yoon. ñoom tamit dañuy def benn danger ndax ñun genre dinañ ñëw koo xam ne tey jii comme as par exemple day ànd ak Ameth Seck sama xarit la tëgg nañ Ameth Seck jiite na convoi bi mi ngi ci kanam as a ngi ci ginnaaw romb naa Ameth Seck dem di may as mais pourquoi moom mu xool ma ba génn ne ma jox ma sa numéro. Ah, mais taxawal mais taxawal mais man man man comprendre ma ba léegi man ah, comprendre ma ba léegi. non non te parce que da ngay gis tamit nit ñi tëgg ba pare di joxe seen numéro fi ñuy tëggee. yow mi ko intéressé jël numéro. waaw mais góor dégg nga góor góor góor am na droit def loolu yëpp mais yow ku jigéen ki yaa war a am fulla sa bopp. ku la jël la numéro waaw yow yaa war a seet am fulla sa bopp mais jigéen ñi dañoo yomb yomb yomb comme case à jeter ma loolu ma jaaxal quoi comme case à jeter. Ah. dama pare ah. wax benn affaire léegi si xale jigéen jël nañ benn affaire boo xam ne nii dañ koo war a ba muy tey. génn nañoo am Ahmed Seck bàyyante nañoo ak Ahmed Seck day dem génn ak Bass Seck ndax Bass Seck ak Ahmed Seck doon ànd no da ngay déglu rek wax laa lay wax parce que ba Seck ak Ahmed ñoo doon ànd Ahmed Seck du xaan na sama benn koo xam ne ñoo ngi doon ànd bu yàgg te fa lañ koy jëlee ku yàgg la ñuy wax dégg nga ne daa yàgg léegi dañ jéem a génn ak ba Seck pour naqaral Ahmed léegi loolu moo waral ñu ne xarit amatul te yu ci ëpp nag du ci xarit bi xam bi man ku góor ki du ma ko jàppal dara parce que lépp ko jigéen ki la. boo amee fulla si boo amee fulla. man damay wax sax naan ma ñaanu ma ko yàlla mais su ma ñëwoon sax sama néeg fekk sama jabar tëdd sax moom ëmma ku góor ka ma fekk foofu ëmma lu may wax ak moom parce que moo ko may accès bu mu duggee ci néeg bi ba leneen di xew mais moom moom dina jël ay bagages am sérieusement dox juróomi pa te coori jub. gis nga moom lañ dund sax parce que gis nga ay xarit ak i xarit fekk seen i fare ki far ànd ak ñoom. tamit ci jël say bagage dox trois pas ba sept pas yi wax noonu moom xolam dina ci métti dina ci am lu ko touché ndax lan dina xel ñaar ne sama xarit ak sama jabar. moom ci benn côté nee na du day comprendre xaritam ndax fa lekk ni jabaram moo charmé xaritam ba mu tëdd dëgg la mais ci beneen côté bi dina ci am xel ñaar ndax li mag naan xel ñaar force dina ko ci am ndax nee mu lu tax moom dafa préféré fase jabaram mu dem. mais nag mais foofu noonu foofu noonu. erreur la foofu noonu ku jigéen ki moo njëkk a charmé xarit bi. mais non non xoolal d'accord ma na xam nga. yéen daal yéen jigéen ñi daal yéen jigéen daal yéenay yéenay yéenay problème. xalil ñii dañoo bari histoire. xam nga li tax ma. xalil munoo jël munoo jël sa jëkkër bëgg a tëdd ak moom bëgg a bëgg a tëdd ak sa beneen xarit munul ne. mais gis nga man mii man mii sëy mais déglu ma man mii ci man xam nga duma ko def. kon yéen ñi waroo leen koo war a mun a def. si yoon man yow laa ànd. barki <laughs> lal daa xat lal daa xadi wetu leen kii moom li ma lay wax moo tax wala moom sax léegi attends may leen ma may leen ma moom ay moroomam ñoo fi bari gisoo comme genre bi ñuy waxtaanee léegi moom moom ay moroomam bari nañ fi xam lax bari nañ fi comme genre bii la rek noonu la demee dégg nga ma nee lal bi ngeen wetu dégg nga lim lax ngeen wetu dégg nga léegi yow la moto la moto ñuy ku aye yëg ci kaw ku aye wàcc ci suuf waaw. parce que yow doo yow <laughs> du tax ba du ma nit. waaw dama wax fii xam nga réew boo wax fa dëgg erreur tax boo fa xëy dëgg ñu yóbbu la fee. te man fee a dem may ma <laughs> waaw may ma rek waaw man. <laughs> man ñemew ma fee. moo tax moo tax dëgg moom du ma ko fi wax moom dama fi wax ni ay kasaw kasaw la rek. loo <laughs> na woon kii. au début non kii dama ne comme que xel ñaar bi ni muy def ñaar la. no non non non parce que kii li mu wax sànq ci kaw benn bi am na solo parce que fase na jabaram nekk ak xaritam foofu contour naa ko. ndax xamoo lan moo tax. góor tamit dafa doy waar ci benn côté. mun na xeex attends may ko ñëw may ko ñëw may ko ñëw lu tax nga wax loo lan lan moo tax. parce que xalil dañ koo seetaan seetaan duñ ko nekkatuñu ay xale léegi ay mag lañ xam nañ ci dëkk bi li fii daw loo gis ñu théâtre ko rek rayal la dafa am. tey jii mun naa nekk soxnaam xaritam moom bi muy àndal guddee bëccëg di dem di ambiance di def lépp di ma teg bët naan euh, jabaru amee sekk bi genre affaire lii sañse na def na nii def na nii. mais yow foofu mais yow mais yow foofu mais yow nga am xolo mom tey lu la teg ba teg nga am sa fulla yem sa jëkkër non parce que parce que fulla ci ñun la fulla ci ñun la yéen yéen amatul fulla yéen yéen amatul bu demee bu demee ci ñun la bu toogee ci ñun la na xam tax ma wax la loolu parce que man nekk naa jabaram genre xaritam ñëw na ma bañ bu ma bu fayda tombeeg sama jëkkër li ma koy laaj joxuma ko bañ naa sonn na sës na fallait que ma dem tëdd ak moom. xoolal ma yëf yi ñàkk a yo yow yow waxoo waxu nit de li lay wax ma. léegi ma la benn affaire su fekkee non non non plaisir. xoolal su fekkee amoo jë amoo amoo man nangu naa yow bu la neexee tëddal fu la neex. mais non même non man loolu du ma si ànd même boo amul jëkkër sax. non comme léegi comme léegi loolu moo fi xew léegi loolu moo amul jëkkër ñi la wax la balaa ñoo tëdd euh, fajar gi jot pour bu nit ñi di yeewu ñoom ñu tëdd ndax ñoom guddi gi ñoom na ñoo dem comprendre nga ñoom guddi gi na ñoo dem bu nit ñi di yeewu ñoom ñu ngi tëdd di nelaw xam nga kooku amul jëkkër kooku mën nga koo nangu mais ki am jëkkër yaa war a am sa fulaay bopp. sa fulaay bopp ba munoo yebal góor kenn sa kanam. dinaa la wax benn affaire ah, ma jox la benn ma jox la benn ma jox la benn benn question yéen xale jigéen ma dama leen laaj benn affaire xam naa seen jikko koo leen ne bëggoo ko bëggoo leen dëggam déet yéen koo leen na du ma génn ak moom yéen xam na leen. jigéen ku mu bëggul munoo wax ba la bëgg. bu demee ba nar a génn ak yow daa am lu mu gis ci yow intérêt bu bu ko findi léegi deuxièmement ma jox la benn affaire di nga gis caga buy dox ci mbedd mi di wër di cagatu di def lu ko saf mais bu bëggul yow ku góor ki séq ak yow loolu du ko séq ak yow léegi nag moom laay lay wax ni boo nekkee sa biir néegu sëy nekk sa néegu sëy di sëy góor ak nu mu mënta ñëwee lu mu yàqu yàqu yàqu lu mu bon bon bon ñëw bëgg yëkkati paaka nar la koo sax ne dala koy teg yow boo bëggul mu seq ak yow loolu du ko seq ak yow. mais li ci ëpp léegi xaalis moo leen jiital xaalis. moom ak ak bu góor bu ceene galant genre xoolal xoolal pare ma sa xoolal. non non non ma sa mu ne genre nii nii. Eh, barke li ngeen ciy comme ah, nan di ngeen sañse xeeñ lu neex génn laal seen. mais tey góor bu sañsewul tey ngeen jàppee ko ngeen jàppee ko benn benn koo xamante ne vaurien la. duñ ko jàppee dara duñ ko jàppee du duñ ko jàppee benn espèce ndax xam nga la moo tax ñun dañuy dundal góor góor dañuy dundal. kon ñun mënuñ mënuñoo mënuñoo toroxal góor góor mënuñoo toroxal. lenn dafa am ñu jàppalante ba yegg fu ñu bëgg. mais genre tey jii man damay ñëw ma ne prétendant ku mel ni xalil de roue la yor daf may yóbbu far foos dañuy doxaani gelam bu ma ko rombee du mer. waaw mu ngi noonu nag day mer mais tey jii ma wàcc naa ci deux roues gelam ñëw na ne ko xalil waxoo ma woon lii genre ki nga àndal affaire yu et tout loolu cœur brisé la ci moom bànneex la ci man ndax lan naqaral naa ko. Ah, mais man su ma amee fulla yow loo ko naqaral naqaral te man ak yow dara man am naa dem ko. waaw mun nga dem jégalu ko ndax yow bëgg nga ko bëgg na la boo demee ko far force far force mu ndax lan amour. mbëggeel moo diis xaleel mbëggeel dafa bëri. oui moom laa lay wax nee naa la mbëggeel mbëggeel moo nekk lu garaaw mbëggeel moo nekk lu garaaw nee naa la xaleel xaleel xaleel kii waxatuma ci moom kii moo kii taasukat bi loolu mu taasu ne mbëggeel du tàggoo buy dugg ci xol di toog moom looloo koy dal ci mbëggeelam toujours. kii kii xam naa kii xam naa lu lu ko artiste bi koog moo tax ko instant bi ba kooku doot ko defat. ñu woo ko jubal leen ak moom. yàlla tere dina mel ni table yaa ngóone. déedéet jox ma noonu léegi ma léegi jox ma numéro léegi woo ko mu ñëw mu ñëw en direct ci émission ah déet ma bàyyi ko mu souffrir bàyyi ko mu ba nobu ma maa bëggoon maa bëggatul moo ñëwoon suñu kër doxaan ma charmé wu ma ko maa bëggoon maa. Ah, yow charmé woo ko ba mu lay nag. mais mais am na loo ko jot <laughs> kii dafa sarme waaj moo tax waaj mujjee koo bàyyi kii daa mujjee sarme waaj moo waaj mujjee koo baax. ñoom xam na mooy seen problème dëgg fa yàlla man moom dafa daf maa topp presque euh, man na ay 3 mois yooyu. mais yow yaa ko sarme sànq sa biir wax. non non bi noonu début bi noonu daf ma top après ma xam ne nag man mi kii caaxaan affaire yooyu dugalu ko ci man. genre affaire yooyu damay def samay sinap genre bind comme li nga xewal léegi rek ndi su booy bi wala alalu kilifa gi. Uh-huh. genre foofu neex. yaa xam léegi mu woo loolu rek loolu rek rey na ko góor loolu rek charmé nga ko. loolu mooy charmé en privé. privé damaa woo wax ma ku ma wax boobu ma ne ko damaa weer rek boo weeree yaa moom. au début bu ma invité ñu ànd génn doxantu genre affaire yooyu ma commencé. la la la la moom a dëkk.

mais ndaxal nan nga def ba la gis nan nga def tey ba mu la gis. ba mu la gisee lan nga def lan nga doon def. dëkk dëkk naa ci koñ est ce que est ko xoolee tasul mees bi sax nañ ñoom fa def seen euh, genre daayira may romb. Ah. sëñ bi ci jëm wax jaayu noonu. ma léegi yow léegi noo doon rombee. romb naa. noo doon rombee soo mini. man xaw ma dégg taxal même foofu même foofu romb comme même foofu yow dégg nga eh, na sol sama mini. yow ni ñu toog daayira nga romb sol mini. mais man xamuma ko xamu moom xamuma seen sëriñ woo na ma ne ma kaay ma ñëw ñu ne ma doo dugg ñoom ñu profité ma ci bunt bi ma ne ko man kee moom woo kee laa ama soxla muy sëriñ bi fa bi fa toog pare naa jug dem ci sëriñ bi. ak sa mini ak sama mini ndax moom moo oh. woo. ak ak ku mu doon moo ma yow mini boobu mini boobu ba nga ko solee rek si nga ko charmé. non moom mais moom moo ma xool moom moo xool mini bi ma sol. mais man xamuma ko. waaw loo xamante ne c'est xoolable en fait yow jigéen tey day sol loo xamante ne nii. tey jii man bu ñu xool bay bëgg a parce que yaa sol baa bi. mais léegi su ma ko solo ko solo nag. ñoom solatuñ baa yam ci. nañ wax taxamoo parce que xam nga man ah. baa ba mu jënd baa bi 1000 francs la ko jëndee wala 2000 ma jox la exemple baa bi dañ koo wax pour mu sol ko baa bi non dëgg loolu baa ah, ñaata ñaata 4000 léegi ba léegi baa bi 4000 léegi ñu ne baa bi fii lay yem ci ndigg nga takk say feru cristal mais léegi ñoom defatuñ ñoon dañuy jël cristal indi ko ba seen weeni nii jël seen baa bi xëcc ko ba ci kaw léegi nag li la li nga xam ne yow yaa ko sa bop góor tamit ah, góor la. nga xam la doon nekk léegi ci biti lay nekk. kon moo tax nag léegi jigéen amatul valeur. moom la nanguwul. kii bis bu ko defee kii kii kii bis bu ko defee romb rey rey ay nit ci mbedd. mais ma mais ma continuer continuer si mini bi ndax yaa ngi woon fu am solo. romb dugg naa sama mini. pare na dem naa ñibbi sëñ bi ne ma boo xëyee suba ñëwa ñëwa sama kër. man may dugg sunu kër mom daayira bi tas na mu ñëw taxaw ci fet ci sunu bunu kër di xaar mini ba la mini ba <laughs> waaw léegi dem nañ tase ba cinq mois ma soog koo nangul ñu commencé génn. ana mu tey mais mini ba nga ko reyee mini ba la. sëy nañ ci sunu tuut tànk. macha allah yàlla du beneen ñëw ci. mais mini ba mini ba mini ba nga ko reyee mini la ay xaritam ay ko sa jabar ji mais que léegi mooy li ma lay wax. léegi nag léegi nag léegi nag tey Massamba tey bu ko jabaram ji mayoon mayoon loolu tey. amaana tey loolu du ko si fekk. nañ waxante dëgg. waaw parce que mooy li ma lay wax rek ñoom premièrement comme tay jii ñu xoo exemple ki dafa nopp amet Seck xamna na ne Ahmed Seck koñ be lay jaar buy tok ci koñ bobu léegi mom day def le tout jaral nako buy tout jaar ci fofu sax day sol ba acc ko ba ci kaw wala mu sol lu gatt wala su musul sangu di sangu ba set nak pourquoi amet Seck ay beutam rek lawul ay beutam ak rek le mais tamit gor gor la man amna no may rombe am lo sol suma la xol loolu waxuma ci yow day melni sax man nekatuma gor ah wala. yéen dal. yow dara nek ci na dama ci ke dama dama wuyu kee ba waa wuyu kee ba. pare noo waxal noo waxal yaa noo waxal am sens. bàyyi charme bi ngay charme góor ñi. wala yow yow dafa mel ni sa tëggkat bi dama ko charme de sa sa artiste bi. yow bàyyi maa wax artiste sama xol bi ngay tàngal na nga ko bàyyi. tàngal na nga ko bàyyi. non kii daf may faj non li ma bëggoon wax mooy pourquoi liñ ne jigéen day vierge. dëgg la jigéen dafa war a vierge dafa war a garder dignité am ndax loolu benn dimanche la ñëpp ko bëgg ñëpp ko yàkkamti muy yaay bàjjan papa frère mag ñëpp ko yàkkamti daal ba ci sa jëkkër mais tamit ni nga war a vierge noonu la war vierge. maa la benn affaire moo tax ngeen di sonn toujours moo tax moo tax déglul moo tax mooy li ma lay wax moo tax ñoom xale jigéen moo tax moo tax yéen wax déglu may leen ma tuuti moo tax ngeen di toujours bàyyi leen moo tax ngeen di toujours. Example, example, man comme example. exemple li mu ne ndaw goor man ko goor ba mu juddo ndaw ba mo la ci leer ah god, la jël god la jël god bañ ko tapit la ndawam wacc ndax fofu la commencé bañ ko tapit la ndawam wad mais mais taxal mais taxal do do do do li si góor nekku si jigéen te góor te du dem te bañ ko laabaanal waaw di ko tëggal ndënd amul kon yéen jigéen ñi tey yéen a war a yéen a war a tey am fula tey sàmm seen bopp. non loolu moom amatu fi loolu bu njëkk la mais jamono jiñ toll nii. ah góor ñëpp bu góor doon génnee ndaw bu góor doon génnee ndaw da ngay compter ñu ci génnee ndaw mais loolu amatul sens mais amatul sens ndax gis nga góor moom fa lay tontee kii ndax yow ndax loolu non mais loolu yow compter yow mi di jigéen rek. <laughs> ma ne Ameth Seck tey ku ko waxoon teel boo xam du ko téye. du ko téye. Ah, parce que tey gis na ne tey jigéen sol na baax xoj na ko ba ci kaw def na ay cristal am sol na soutien def ay carxam takk seen tànkam non non. mënatu koo téye ndax bëtam sori na. mais bu ma la wóoree lu bëtam waaw lu bëtam sori sori sori xanaa xamu ne góor lu mu amul ambition du ko def de. góor lu bëtam sori sori sori si ditam am koy daw. si ditam mu ngi koy daw. lu loolu lu loolu. ah mooy fii la lay waxee. tamit mu ngi lay wax ca lañ kii naan tàpp nee nañ ko tàpp. <laughs> barke alxuraan ke ba nee naa ne gars ah. tegu naa ne dali for moo dàq mais géejuwaay fii dara gënu ko neex. bon di nuyu ki nga xamante ne mooy mooy Massamba ah, keroog daje nañ wax dëgg fa yàlla nit ku baax la dafa taxaw rek ma laaj ko numéro téléphone am mu jox ma ko xam naa nag Massamba dinaa ñëw ba sa kër ñu def kër brisé sa kër incha allah bu neexee yàlla loo wax si loolu ngi ne. man xam la laay wax si loolu man fi <laughs> kii a jaaxal xam nga xam. leen bien ñëw leen bienvenue ñëw leen ñëw yaa ngi may dégg góor loo sarme sarme bu la wër la góor loo ko wan sa bopp wan sa bopp bu la wëru wëru la mais ñii ñii il faut ñu génn li nekk seen xel mi xam nga ñun ak ñoom bokkuñu ñun tey jii di exemple yàlla may nañ sax ñu am ñett jabar ba ñeent ba juróom dëggam déet ñaar ñett ñeent ba juróom xam nga yàlla may nañu ko mais ñoom yàlla mayu loon ko benn la leen yàlla may. Eh. dëggam déet. ñëwal ñëwal kaay Aïssa ñëwal nii sama sama sama sa borom yaa yaayam a baax nag bëgg ma barki Serigne Touba yaa ngi dégg ñoom ñun am nañ droit am ñeenti jabar ba juróom mais ñoom yàlla mayu leen ko benn la leen may benn jëkkër mais léegi pourquoi ñoom mënuñoo yem ci loolu. am na jigéen yu am ñaari jëkkër. moom laa la wax pourquoi mënuñoo yem ci loolu. yow yow am jëkkër am far. yow de gisaguma ko waaye. am jëkkër am far mooy loolu gis ci yow. Ah? am jëkkër ak fee bari. ak fépp ba pare man xam nga lan moo ma njëkk a métti bi may jaa bi ma duggee ci aar léegi mat na dix ans mat na dix ans maa ngi ci aar mais wax dëgg fa yàlla bu may xool ba ma gëjee tëgg laabaan ak léegi moom wax dëgg fa yàlla xuma ban année. amatul waaye amatul amatul ñu dalal suñ gal gi ñu dalal suñ gal gi te léegi li ma métti muy. dañuy takk jigéen tey bu buñ la takkee tey may xaar laabaan bi pour te xoola dañuy takk jigéen ma tëgg monsieur mariage bi ñuy doxal may xaar laabaan bi de mais xoola damay jekk ba gis ko mu romb ak di dox japp ñambaram efficace bam ñu dalal gan gi soxna si nuyu nañ la may leen di fekk defal ni ngay yambar lu ni yaay en direct ñepp ak lay sétane tur bi nan la aisha aisha oui yaa ngi si baax maa ngi si jàmm waaw yaa ngi keur brisé si may ngay sétane kay nokay sétane par wifi wala par connexion par connexion ah est ce que tay yon la tay jigen dem bay sarme gor mu di ko non lolu mom du yoon rafetu si deru jigen déglul fii bu baax demal demal. rafetlu si deru jigéen parce que jigéen da nga war a sàmm sa ndaw tamit nga toog ba jëkkër jox la premier cadeau takk la teral la nga sëy sigi sa yaay sëri yow de waro nga teel a ñëw nga ak borom yu rouge yi du yoon tamit mooy loolu artiste bi kii artiste bi moo ko koŋ moo ah. tamit tamit cëru sagu jigen, parce que suñu yaay dañoo seen kër yi ba dee nammuñu dara luñ namm dañu koy defar ba si man mi toog comme bu ma jaayee sama ngor ngir cheveux wala or wala ay iPhone yi ñàkk fayda après man la ci fekk yow la ciy fekk rafetul tamit nañ toog wodduwaat suñu sër siggi suñu ndey sonn nañ tamit seen sër. mais mais mais est que mais est-ce aussi li nga xamante ne Massamba moom la def ki nga xamante ne Ramatoulaye da koo charmé mu tëddee ko est-ce que tamit loolu tamit rôle lu góor la quoi. ah si parce que fii góor boo fi. tijji ret tamit góor moom amul yenn yërmande yi de mooy loolu tamit. fii góor bo fi tijjil tamit nag nee na fii góor boo fa tijjil tamit non baax mu yeggale baax mu yeggale ngeen ne góor boo fi tijjil tamit yeggale. ah tamit day def ruuram rek de lo ko wan loolu lay def. kii ay muy filke lay génne ay rob aj dóor si. mais tamit lu ma leen di wax tamit dama mënoo wax am nañ ceewaat suñu bopp jàpp suñu bopp te xam ni serveur du dara iPhone du dara yéen ñi jaruñu ñu si ndax tamit di yàq yéen deru jigéen ñi mooy loolu nañ jàppaat suñu bopp tamit loolu rek laa am. lu ma jigéen tey da nga war a téye sa compte iCloud bañ ko joxe. ah ba góor bu ko jar ñëw nga jox ko tamit ñu tëggal la lu neex amee sekk ñëw. léegi yow ngeen la ngeen sa ay kalaat wala ko jox. Ah, man bàyyi naa ah du yoon saa yi waxal si lu kii non Aïssa Aïssa li mu wax xama Aïssa waroon na teel a ñëw xam nga bëggoon mu teel a ñëw moom bi muy ñëw li ma wax avant moo yegg dafa ñëw jaarat looloo ma neex ci waxu Aïssa muy man bëgg naa iPhone yi ak ak téléphones yi ak cheveux yu yi ak affaire yàlla moo koy maye. nit loo bëgg lu ne boo ci duggee liggéey ci wut foo jaar wut foo dugg boo ci génnee dang koy am xam nga Aïssa mii li mu wax léegi wax na dëgg man sax su ma ko romboon ci mbedd mi muy def naka su dul noonu damay xëcc loxoom ba mu ñëw wax ko luy tàq da du fay parce que yaayam su may wax sax dama naan moomu njëkk a may or moom yaayam moom waaw bu jung jung rekkee rek jàmbaaray waaj boo mu fajal sa aajo nga ñibbi loolu la seq ak nit ñi moo tax mu wax nii dafa nekk ci mu wax ko te maa ngi leen koy wax avant muy iPhone neex server seve neex na téléphone neex na mais xam nga lan fajar Ahmed tek teg bungoy ci buntu kër gi war sabar ñu ne lan la ñu ne laabaan koñ bi yëpp ñëw loolu mooy dignité loolu moo gën a rëy ci jigéen. laabaan du ñëpp lañ koy defal am lolo ñoo xam ne wuñ ko. wuñ ndaw. kon kon kon kon la quoi la lovin loolu si Lagi léegi yow lan nga wax tey si lu kii waat dama ci ànd ak moom ndax man mi dama cee jaar te dama bëgg ñëpp jaar ci tëdd ñu yeewu ma fajar te jaxaay bii laa jóge lu ne laa dégg te sama bopp maa gënoon a mën sol kuy sol lu gàtt di ak ay njaago bañ teg ma njaago yow koy sol nga mini ba sëriñ bi ne la kaay ko sol nga mini ba sëriñ bi ne la terew ko gis nga sol naa ko taxul ma jaay sama bob, taxul ma jaay sama ngor ba nii nii iPhone lu ma sëfa sa gis nga du ko teg sëfa bi ma yàlla may dama koo doyloo. macha allah jigéen jël leen exemple si kii. lu ki yàlla xam nga ne te ku te ko génne ma génne ku génnee iPhone ma génnee ko ndax moom laa. moom nee na nee nga lu yàgg. lan ciy wax. déedéet kii bàyyi leen ko kii instant yii. nee na Nokia nga lu yàgg. kii li ko artiste bi def moo ko métti. gis nga ko déedéet kii bis bu ko waxee dañ koy dañ koy méb yóbbu ko seen kër kii bàyyi leen ko mu toog rek. léegi yow lan nga wax ci lu ki wax lan nga ci wax kan ki wax ah deug la nak suba ba leg ma ngi ambiance waxuguma nak lu fi nit ñi mëna deg deug la wala deug deug la hmm deug la ki lu wax deug la ndax jigen ku nekk nenañ sam sa ndaw sa ci ni mën nga nekk di wax di ambiance mën nga sol su fess nga rom ñu ñu dekkal la fo dekkul du deug mhm. sama loxo bi ku ko jël bëggoon ko duggal ci soow sa neexuma duma ko ci duggal ak sos mu tangé duulim beeg bëgg pobar yeeg ya, yooyu dëgg la wala dëgg suñu yaay tamit sonn na te suñu kër papa ku ci nekk yaay ku ci nekk sëy nga fa lu rafet ndax jigéen jaru ngay xaar daraay góor ndax sa yaay bu la juree fu mu la war a juree yare la fu la war a ya nga màgg kon yow ya, war ngaa xam ki nga doon am na yenn yoo xamante ne warul jigéen yii ñuy sol yii ñuy def l'islam sax da koo daganul waaye lu mënta ñàkk rek noonu la ndax dañ ne tollu ko jëf ko weesu ko bàyyi ko mais tollu ko tamit du tax nga bëgg jël sa jamono bëgg koo foowee nga màgg après laabaan neex na nga laabaan ñu laaxal la wala nekk naa la mosoon naa lekk laabaan baxal lépp mën naa ne. lépp yow. naa man duñ may yee des may dem laabaan <laughs> mais garaawul mais nit ku loolu dafa neex. fierté la bàkki Seydina Mohamed nga tëdd nekk jànq fees dell say noonu lu ñu doon séntu ci amul man maa ngi nii nañu waxante dëgg te dem li ma sol am na ñu bari ñu may jugé li ma fi wax nii des fois kenn bu ko seetaan day naan kii dafa bëgg góor dafa vulgaire dafa nii dafa fekk xamuñu xamuñu man ni ma mel walla xamuñu sama jikko tànk toogoog man walla nga xam ma dëgg doo xam nii laa mel comprendre nga noonu la dëgg la tamit jigéen ñi war nañoo defaraat toogaayi góor ñi tamit parce que góor baaxul jigéen baaxul ndax ku ci nekk def nga lu naqari sa moroom déception fu ne lay ñëwee dëgg la wala dëgg. yow moom yow dañoo cœur brisé sa xol bi di ko cakat cakatee. bu yàq sama xol wa taasukat yi loo leen ko waye woon loxo bu la bàyyi loxoo ngi toog doo des si loxo dëgg la wala dëgg. gis bi stable nga yaa ngi yaa ngi war ci yeneen loxo. bu ma nekkul ci yeneen loxo maa ngi ci beneen eh, ma xëyee def li may def sangu ba sama yére maa ngi ñëw xëy li ma fiy fekk mi ma. li nga sol nii rek yaa ngi góor. nag bu yaakaar ne maa ngi lay charmé yaa ngi nax sa bopp. waaye yow góor ñi dañoo yor seen làmmiñ tamit di wax rek góor ñi dañuy ndalu rek. <laughs> ñëwal. non en fait kii Aïcha li mu wax d'accord naa ci ndax jigéen leen nga am. Aïcha waroo ngaa teel a ñëw. <laughs> non non am ambiance la rek xam nga rek werante buy am xam nga werante buy am foog ambiance mën cee am genre affaire yooyu ndax cheveux du dara danga koy takk benn fan. ñaari fan ñetteel ba clôture ba xuufu nga dindi tegaat beneen iPhone da nga ko yor semaine mu daanu écran ba toj boo ko changé perte nga ci lu bari kon xam nga loolu yëpp du dara li ko gën a cher mooy ndaw te da nga koo téye bépp bi ngay nekk bébé ba bépp bi ngay màgg kon li li des nga xaar jëkkër ñëw teral la yàggut gis nga jëkkër jël la sax respecté respecté nga sa bopp respecté nga sa yaay respecté nga tamit sa jëkkër ji la foree ci mbedd ba ñëw indi la seen biir kër. ndax ñu bëri ñu ngi naan ko kii xeeblu naa ko kii lii naa ko kii dama koy gis genre fu ne almadi comme man genre damay dox damay dem gelato damay dem loolu du pour bon pour féexal sama xol la pour ànd ak samay copine def balaat jël po féexal sama xol la mais du te man xam naa sama valeur au fond du cœur xam naa may kan xam naa nday ma dem lan la bëgg ci àddunaam xam naa nday ma lan la soxla pour teral yaayam sama yaay mënu ma koo fay or mënu ma ko yóbbu màkka mënu ma koo xëpp xaalis leen laa ko mën a fay muy téye sama bopp bés ñëw mu dàmp ma xolam sedd mu jooy loolu rek sama ñaan la sama wàccuwaay la kon li may conseillé jigéen ñu bari mooy xam leen seen bopp te ngeen téye seen bopp am seen valeur ku topp mbëggeel ba suuxal sa bopp gaañ nga sa yaay doo gaañ keneen ku du sa yaay ndax liñ naan ku ku dëgg day boo ñëwee bul boo taxee di nga xam foo koy raxasee dëgg la sa yaay nga ciy sonal sa yaay mooy boot Moy top pendant 9 mois nak na deg lu ko neex lu ko nakari lepp mu deg ko ci mais lu way lu yalla bind sa rek ala kulli al day am nak yalla ko def suñu destin fo nak ba am ci sa nastu bakan lol nak yalla def ko sa destin mais lu yalla def sa destin mom far la force day am lu yalla tuddu rek day am jigen ni topar len sen tank bu bax te baña jël bi tek ko fo xamne tay ji da di jàppale leen seen yaay te jàppale ñu ñun tamit liñ ciy dégg bari na jigéen dafa bon jigéen ñëpp a yem déedéet ak jigéenam ñun liñ ciy dégg dafa doy gën leen a conseiller seen bopp te ngeen bu ngeen toogatee góor ngeen jéem koo conseiller jéem a waxtaan ak moom na ñun tamit ni suñu xel matutee noonu la góor xelam matute ñun ñëpp war a soppante xalaat conseillante genre duggalante génnalante couple loolu lay jëriñ mais pas pour couple lu néeg couple lu saal couple lu piscine party yooyu yëpp amul sens couple toog leen ci salle ñëpp gis leen ban public yaa ngi fi bari na la moo doon ñu def jardin bari na toog leen fu leen nit dul di gisee di di leen seedeel lu baax mais bu ngeen tëjoo mu ne eh, xool leen day ma dem naa ku góor ki tëju na xamoo lu ñu lay waxal foofu te à de boo tëjoo foofu lu baax rek nga fay def lu rek nga fay wax génn nga furaase sax ñu ne saan yërëm naa yaayam barki alxuraanu karim jigéen nañ nañ soppiwaat suñuy xalaat tuuti te changé waat suñuy xol te firi nag bañ a déglu waxu kenn ndax waxu waxu démb ak waxu tayayam lépp fi lañ ko fekk te dañuy dee bàyyi ko fi kon l'essentiel ñu gën a fonkaat suñu bopp gën a téewaat suñu bopp rek. acca gars yi gis ngeen loolu la leen indi woon si nga xam ne mooy si émission bi nga xam ne mooy lesson de vie à chaque fois nii lañ koy defee fépp fu ñu waay woo ak foo munta nekk ak noo munta toll boo ñëwee ñu tourné yow émission bu neex bi nga xamante mooy leçon de vie bàyyiwuñ mag bàyyiwuñ paa bàyyiwuñ sëriñ bàyyiwuñ kenn ndax leçon de vie lépp a ngi si biir tey dañoo jël thème bi nga xam ne mooy kër brisé waxtaan si entre ma Massamba ak Ramatulaay gis nga gars lu luñ ko luñ ko luñ luñ si discuter ñu génnee nag yeneen ak yeneen léegi lu ñu mayoon si heure bi temps bi man na damay bàyyi ñu nuyoo rek gars yi tàggatoo saa looy tàggatoo. waaw di leen wax ne nag kontaan nañ bu baax parce que lii tamit dafa baax si ci réew mi ñuy xaw a waxtaanaale di xaw a jël suñu xam-xam bi di ko def ci xale yi jigéen yi xam nga ñoom it ñuy xaw a yeewu ci yu bari mais instant bi moom sama xol bi dafa sedd bi ay sa ñëwee. ndax ASC ba mu ñëw lama doon wax lepp da ko régler té mom bu ko défé sax dama ci contane parce que li tax ma ci contane yaayam da bax bari jom nangoo liggéey mën ma téral man Ahmed sek eh, mom ya, rek day yëkëti ay junneet bi ko def ci man kon mom bu né goor yëngalu ko rek dama koy nongul ni goor yëngalu ko barki sëñ Bamba légui nak di leen wax ni wa yenen ci biir rek ak yenen rek ok rafet na nice na liñ fi wax lépp baax na di wax rek nañ am fulla rek jigen mom fulla rek moom moo ko moo ko soxal leneen soxalu ko buñ ko defee rek muy jàmm ñëpp nag brisé nañ seen kër yi mais nañ ñoom ñoom nañ nañ takkuwaat rek te gën a dëgër te xam ne ñoom ñoom ñoo fi ne ndax ñoom ñooy yaay ñoom ñooy lépp daal nañ nañ nañ farluwaat daal di ñaanal ñëpp beneen yoon am na. saa tëdd na tëdd na si basan bi. jooy na ah. ndax artiste bi artiste bi moo moo artiste bi dëgg moo dëgg xolom quoi looy tàggatoo. a xam kon kon kon léegi tàggool ki nga xamante ne ni moo moo moo yàq sa xol mais muy artiste bi. laay kii lii addunaam bu ko gis lii bu ko gisee addunaam day yàq. waaw mais yàlla yéen kay artiste yi nee ma nuyu rek baa leen ma wëri nekk baa leen ma wëri mécanicien yi. <laughs> yi préparé la ah. mécanicien lay bàyyi nga tàggatoo ak xam ne ñi lay seetaan ci wasaare. waaw d'accord xoolal kontaan naa euh, tamit lii rafet na parce que ku nekk nit ku nekk wax nga sa point de vue ak yooyu noonu sottante xalaat ñii wax nañ ambiance nañ yooyu yëpp xam nga rek man temps laay toog hmm. mais loolu lépp garaawul te yow it ñoo ngi lay remercier ba nga fi taxawee yàgg na yàgg sa américain lu mel ni voilà loolu lépp neex na comme nuñ ko waxee rek na jigéen ñi rax saat xel yi boole xol yi ñun ñëpp ñu doon benn lu dëgg ndax réew mi suñu réew la bu yàqoo ñoo ko yàq amul genre amul pôle lu jig góor jigul jigéen te dëgg la tamit ñu gën a wasu àq te ndaw yi ndax loolu moo ëpp. nee na ngeen téye ndaw yi. jànq yi waxuma jeeg de jànq yi laay waxal. jeeg mun na am ndaw. noo waxuma jeeg yi jànq yi damaa bëgg ngeen teen ma seeni ndaw am leen fulla am leen fayda góor chevaux kii nee naa la frontalu pirig day jeex pirig day ruus boo demee liggéey bala yaa ngi ne. kii weer bu dee cent mille la cent am nga loo ci mën a réagir sa vie bëgg ngeen jiin bu dang bëgg ngeen toq buddi jigéen ñi laay waxaal <laughs> loolu lépp ci la jigéen ñi wasu dem leen liggéey te bàyyi lu yomb li bàyyi leen l'argent facile baax na loolu laa mën comme que Aïcha mi nga xamante ne moo mujjee ñëwaa mais gën na neexal gën na neexal émission bi Aïcha dañ lay bàyyi nga tàggatoo mais war ngaa teel a ñëw si dëgg la damaa génnoon mais maa ngi nuyu ñëpp tamit. Asina dafa yëbal quoi si dëgg la damaa génnoon maa ngi maa ngi nuyu ñëpp maa ngi tamit fekkee luñ fi wax am na ñu mu tuuse mais lu doolu tamit dañ leen dañ leen di wax tamit ñu sàmm seen ndaw dimbali seen parent yi sonn nañ si ñoom merci kontaan nañ. <laughs> looy tàggatoo. non li may tàggatoo leen kese la maa ngi lay gërëm di la remercier tamit ah, patiente bi nga def fii. ak xaadim li ma booleeg yooyu yëpp gis naa ko réccu ma ko di def benn question rek pour jigéen ñi ngeen téye seen bopp fonkaat seen bopp ndax jigéen valeur la <laughs> Kumba arrêté <laughs> ndax jigéen genre valeur la jigéen du kat-kat du terrain du kër du def dara mais lépp rek valeur la ci xol la bu xol bi setee rek lépp set na lépp rafet na kon jigéen ñi na charge ah te raxas seen xol yi raxas seen xel yi xam li ngeen ciy def te bañ a topp benn góor ah, bu leen fasilal boppam góor bu la yombalal boppam rek jàppal yow dina di nga ko yombalal sa bopp ndax góor may na la 10 000 francs may na la 100 000 li ma ci gën a métti mooy góor bu lay may 2500 nga jox ko sa bopp te loolu baaxul jaaduwul loolu rafetul sa déggut déggut bokkut sax ci dégg-dégg ba yem ci xalaat kon nañ ci baye xel bu baax encore une fois di la remercier di la balu ak tamit ak patiente bi genre affaire yo yi nga fi ñu yëpp ok merci acca gaay maa ngi jégalu ñëpp ba ah, su fekkee wax nañ fi li nga xamante dafa dëng ngeen ñuko bu jubé si nga xamante bu jubé ngeen xamné yalla suñu borom la di nuyu fi nga xamante mom la dëkk moy sama kutaal ah kutaal man kotal man kotal lay fiertoo quoi sama dëkk fa la juddo fa la yero may nuyu wa kutaal ñep ah di jox ku nek sa wàcc way bàyyi kenn di leen jox dig daje a chaque fois ni ma leen ko waxee fu waay mën a boo ñu wooyee ñu def déplacement ñu fekk si la ba fi nga toog ñu waxtaan ak yow li nga xam ne mooy leçon de vie leçon de vie nag ubbil nañ ñëpp suñu porte waaw boo wootee si numéro commercial wala sama numéro rek incha allah ñu fekk si la gars yi di nuyu sama cadreur bi ah Al Amin borom borom borom borom nigérien ah nigéria la quoi moom déggul dara lu dul lu angale angale rek la dégg di ko di ko nuyu bu baax a baax ah. di jégalu ñëm nag di jox dig daje ba beneen yoon fii lay xewee si wasaare merci beaucoup.